En prélude du Grand Magal de Touba, le président de la République Macky Sall est attendu ce samedi à Touba pour effectuer son ziar auprès du Khalif général des Mourides, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké. Déjà, les éléments de la sécurité présidentielle sont en reconnaissance dans la capitale du mouridisme. Mais avant, le chef de l'État, Ousmane Sonko, Détiefal, Khalifa Sall, Aïdamboj et compagnie vont se rendre auprès du Khalif général des Mourides ce jour. L'activiste Abdou Karim Gay alias Karim Khouroum Kak et le professeur Cheikh Omar Diagne ont été placés en position de garde à vue à la division des investigations criminelles ce jeudi. Garde à vue notifiée, Karim Khouroum et Omar Diagne vont passer la nuit au commissariat central à poster leur avocat, Maître Cheikh Koureishi Ba hier nuit. Selon les informations de Libération Online, les mis en cause sont visés pour euh, diffusion de fausses nouvelles sur des propos tenus après le décès de l'imam Ndao. C'est le ministre de l'Éducation nationale, Mamadou Tala, qui vient de faire l'annonce. La rentrée des classes de l'année académique 2022-2023 aura lieu à partir du lundi 3 octobre prochain pour les professeurs et le jeudi octobre pour les élèves. La, ferme, la fermeture des classes est prévue pour le 31 juillet 2023. En Afrique, l'ancien président mauritanien Mohamed Ould El Abdelaziz a recouvré la liberté dans la nuit de mercredi à jeudi après plus d'un an de détention préventive et de contrôle judiciaire en attendant son procès pour euh, corruption présumée. Le principal leader de l'opposition à la junte militaire au Tchad, Succès Masra, se rendait ce vendredi soutenu par des centaines de partisans à une convocation du procureur de N'Djamena quelques jours après une manifestation non autorisée violemment réprimée. L'opposant de 39 ans est le président des transformateurs, le parti le plus virulent d'une coalition de l'opposition et de la société civile euh, qui boycottent le dialogue de réconciliation nationale lancé par le général le Royaume-Uni a sombré dans la tristesse jeudi 8 euh, Après 70 ans de règne, une longévité jamais vue auparavant dans la de 96 ans. Un Un drame qui fait de son fils le premier héritier, le prince Charles, le nouveau roi d'Angleterre, tandis que son épouse Camilla Parker Bowles devient reine consort. C'était tout pour aujourd'hui. Merci de votre attention.